ñun nag dangeen a am kóolute am yaakaar ngeen dénk ñu mairie bi muy mairie boo xam ne nii benn ëpp ko doole ci Sénégal benn njëkk ko ci Sénégal ci configuration ci ñi ko dëkkee Kaolack ci diine ci xam-xam ci aada ci lépp ci économie mu nekk tamit ci diggu Sénégal ci xolu Sénégal histoire yu bari am fi tey jii li ñu man ci mbaaxu yàlla muy télévision boo xam ne nii fii lañ toog Sénégal gépp àdduna bépp duñu seetaan Kaolack rek moo ko am ci sous-région bi moo tax bu ñuy wax dog jot na ci ndakaaru ak li ko wër kawlax dañ naan dog jot na ci kawlax ak li ko wër suñ télévision yal na ko yàlla barkeel yàlla yokk ko liggéey bi nag ñu am luñ ko sasu woon ak yéen ne bëgg nañ ñetti weer yu ne ñu ñëw won leen li ñu liggéey ndax fi ne nii information dafa am solo ndax kat wa zakkir fa inna moom tanfaul muminina loolu moom mooy information mooy na ngay fàttali beneen bi mooy nit booy liggéey buñ la dénkee da nga war di diisoo yéen gis ngeen ne réew mi ëpp démocratie ci àdduna bi mooy Amérique président ba tout le temps mi ngi ci kanam peuple am di wax ak ñoom di leen informer ñu di ko laaj muy tontu ñu xam ne nag suñu sañoon keroog bi ñu nee wiiw dañuy taal oto yi dugg dëkk bi di klaxonné di piip bi di wone ne nii lañ mel ak nee lañ mel waaye ñun nit ñu yare loolu gënul ci ñun ndax nit bu yàlla defee ñu wóolu la yàgg naa ko wax star bi gagné population Kaolack yow gagné goo dara ñun gagné wuñ ñun dañ ñoo dënk loo xam ne nii bala ñoo gagné mooy ñu delloo ko nu raw nañ ñu ko dénk woon ak yaakaar giñ ci amoon bañ a tas loolu boobu lañuy ñuy gagné bu boobaa nag buñ dikkee ku ne mën nañoo sargal waaye ñu dënk la dara rek jotu googu commencé sargal sa bopp commencer won ne maa fi ëpp doole maa mel nii kooku ak bew la te yàlla bëggul ku bew lii ñu taxaw nag nekk ci dara duñu ci génne képp ku bañ dégg ci lu la naqari dangay def dangay ngay déglu rek la yonent bi la yàlla waxoon yonent bi eh, walaw kunta fazzan xalisal xalbi lan faddu min hawluka fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal ala Allah lool rek doy na ci njiit alxuraan moo ne yonent bi da koy tagg rek ne ko boo nekkoon koo xam ne sa xol dafa xat kon kenn du la jege su ma neexoon tey mbooloo mu may dugg ñaar fukki garde corps ñoo may wër kenn du ma jege waaye nit balaa baax day mel ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defoon maa li haza rasul yakulu taam wa yamsi fil aswaaq nit ki dangay ngay jaxasoog say nit dem ci biir yàlla dafa wax yonent bi na ngay diisoo te boo paree nga jël décision waaye na leen yërëm tey diisoo waaye nee na ko wen kaana kabura alayka iraadahum fa in istatata an tabtaxi nafaxan fi ardi aw sulaman bi sama loolu dafa diis yàlla mooy wax yonent bi ne ko lii la nit ñi di wax bu la naqaree gasal suuf si nga dugg ci loolu la ko wax xam nga léeg-léeg ñun xale ñuy waxante naan la dala naqari ñu ne la waa gasal suuf si yàlla wax na yonent bi ne bu la lii la ñi di wax naqaree gasal suuf si nga dugg an tabtaqi nafaqan fil ardi aw sulaman fi sama kon ku jiite rek nangul ñu di la wax waaye del déglu kon loolu dama koy wax sama bopp wax ko ñii ma àndal liggéey bi yombul boobaak léegi fu ne lañ dugg fu ne lañ taxaw lu ne lañ jéem ci ñaari weer le 15 février lañ ñu teg defal ñu passation de service tey le 23 le 24 ah waaw le 24 avril yaakaar naa ñaari weer waaye buñ leen wonee liñ fi def rek da ngeen gis kon nag loolu damay jiital gërëm population Kaolack gërëm conseil yi nga xam ne nii ñoo ànd ak man liggéey bi gërëm ñi nga xam ne nii ñooy adjoint yi gërëm personnel bi bi nga xam ne nii ñoom tey lépp loo xam ne nii ñun moom lañ bëgg ñoom ñoo war a joxe misaal boobu ci kaw suuf te wax dëgg yàlla quelque réeroo amoon ñu leeral ko ba mu baax ñoom tamit ñu am courage u wax li nga xam ne nii moom lañ gis ndax bu njëkk ba gisuñ woon loolu ndax nit ki lu mu gisul mënu koo seede waaye ñu gis ko kon nag loolu maa ngi gërëm Cheikh Seck ak abdu njaay ak ñëpp ñi nga xam ne ñoom lañu àndal ci liggéey bi di leen rappeler rek ne liggéeykat yonent bi sallallahu alayhi wa fekk na koo xam dafa liggéey ba loxo bi di nàcc di dagg yonent bi jël loxo bi di ko fóon ne kii de nit ah, ah, nitu àjjana la ñépp xam ne liggéey nit mën na cee dem àjjana nit mën na cee dem safaan ba yàlla nañ ci yàlla musal waaye yonent bi sallallahu alayhi wa fonk na liggéeykat ba ne liggéeykat nanga ko fay ñaxam bala mooy balaa ñaq way fendi kon liggéeykat dañ ko war a fonk dañ ko war a teel a jox li nga xam ne nii mooy ñaqam ndax nit booy dugg ci service doo dugg ne nañ ma fay dangay liggéey ba weer wi dee nga doog di wax na nañ ma fay kon yow lañu amel sa àq bu weer jotee kon loolu incha allah nañ ci gën a góorlu te xam ngeen li ko indi woon incha allah waaye upp baax na ci laax bu tàng ndax tey jii yónnee nañ ma saleer yi ba signé naa ko ba joxe waat naa ko nag bu tardé waatee nag ci yéen la. waaye tàccu leen loolu waaye <laughs> waaye nag du tee ma wax leen ne leen jàpp leen ne te xam naa ne xam ngeen ko Abdou wax na ko keroog. nit li muy liggéey day bëgg mu dagan jaaykat buy jaay te la muy jaay baaxul wala la muy peese matul mënul dagan kon liggéeykat na jàpp ne lañ koy fay dafa war a dagan te yéen seen faymaa dafa metti fi muy jóge mi ngi jóge ci juuti bi mi ngi jóge ci kiy fay mi ngi jóge ci lépp waaye lu barkeel la ndax liñ leen di fay tuuti na par rapport ak li ngeen di liggéey bi ma gisee salaire yi kon nag yàlla na yàlla def ba nga xam ne nii kaw Kaolack dana yokk dana àgg fi mu war a àgg ba nga xam ne nii da ngeen ci taxaw administration rek moo ñu boloke waaye man xam naa ne compétent ngeen yokkal leen seeni mbir ba ngeen mën a liggéey lu gën a bari ndax li loo ko fay dafa war a liggéey lu ëpp loolu waaye administration moo bloqué certaine développement am na loo xam ne ni danaa ko bëgg waaye duma ko man waaye nañ tey rek buñ teyee ndànk ndànk yàlla danañu ci dimbale ci loolu tamit maa ngi gërëm fii ñu nekk waa cœur de ville de Kaolack ñi may njëkk gërëm mooy per mooy ñi fi nekk di liggéey am fi seen boutique am fi ay emploi emploi yi ñu fi am du dara par rapport ak ñi nga xam ne nii ñoo fi nekk yor seen magasin di fi liggéey li fi nekk mu mat ay 400 wala 500 et quelque places kenn ku ne am nga lu maar wala ñett kon nag mille cinq 1500 personnes ñu ngi fii daan seen doole ak boole ko administration bi fi nekk boole ci ngërëm li waa TVS journaliste yi ak mboolem journaliste yi fi nekk yépp ak kilifa diine yi fi nekk imam euh, Wilane ak Khadim wilaan ak yow mi tamit ak yéen ñëpp ak communication traditionnelle kon nag léegi damay bàyyi suñu adjoint yi ngeen tey ngeen taxaw nit boo ko dénkee mu ne la dama lay won li ma def ci ñaari weer yi toog leen ngeen déglu ko noté bu baax a baax bu fekkee temps bi xaj na fi ngeen posé ay question boo temps bi xatul euh, xatee du ñàkkaat yeneen i bis ngeen posé ay question ndax kat nit yi nga di ko soññi day tax mu gën a góor góorgóorlu ci liggéey bi kon nag maa ngi leen di gërëm ngeen ñëpp ku ma fàttee gërëm gërëm waa sécurité bi ku ma fàttee gërëm maa ngi lay jéggulu xamal ne gërëm naa la wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu